برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان jox ñu ñuy naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun suñu yoon daane ci ndey bàyyam ak ak <laughs> ndey ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que maa dégg benn ma yonent bi moo nu gën ndey ak bàyyi ma ne xanaa yow la gën ndey ak bàyyi <laughs> man sama ndey a sama bàyyi ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci lislaam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ deewuñ ci lislaam mm. alhamdulilahi rabbil alamin uh, wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadul amin wa ala alihi wa ashabi ghayril ومن يتبع بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أمت الشيخ في حضورنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بظفره نجي سنتي الله وباه نجي جلي جنتي صلى الله عليه وسلم دي وحنا اه يا كارنا لي ايرور دو كومونيكاسيون لا تي اه مصطفى جخاتي ميغا خامتني waxna fi wax jo xamantene wax ju reey la eh, lutax mu nek wax ju reey yonent bi sallallahu alaihi wasallam kan mo xam ndeyam ak bayam lolu wax ji sax moo njëkku tegginewu waxuma la nak eh, nga wax ko ci ku ku ni bi sallallahu alaihi wasallam sallam bi kenn ndeyam kenn réerewut baayam yaa ngi deg te yonent bi soso wut ci ci ci kefer yonent bi mustajar ci ño xamantene duut ñu sel dégg nga ndax wax na ne ndax yow yaa ngi wax ne ñoo xamante ne gëmuñu woon yàlla loolu njuumte bu rëy la lu tax njuumte bu rëy la bu fekkente ne da ñëw ci Abdullahi mi nga xam ne mooy baayam Abdullahi eh, ndax taaram dégg nga ndax leeru yàlla gi mu àndoon ci jamonoom dégg nga taxoon na ay jigéen bëgg ko song ko amoon na sax jigéen boo xamante ne. Eh, téeméeri gëléem la ko joxoon ngir rek eh, ànd ak moom sëy ak moom dégg nga mu bañ eh, boo demee ci Cheikh Ibrahim radiallahu anhu daf la ko wëyal muy wax ne ashiqathu nisaau yabzulna amwalan lahu min ajlil baha wal jamali qaala ama alxaraamu fal mawtu dunun fi kalaamin yaquluhu du kamali mu ne jigéen ñi bëgg nañ ko moom moom Abdullahi yaa ngi dégg ñu ko jox seeni alal ngir taar ak wegeel gi nga xamante ne àndu na ak moom yaa ngi dégg mu ne waaye lan la tontu moom Abdullahi dafa wax ne def lu xaraam dee moom a ko gënal bàyyi radiyallahu anhu mu ne loolu foo fekk ku koy wax mu ne ku mat a ngi noonu ndax xéeféer moom mooy ku mat déedéet xéeféer nekkul ku mat xéeféer ku matadi la kon bàyyi Abdullahi war nga bàyyi yonente bi salaa salaam nga ci jàngee nag ku mat la woon dégg nga nekkuloon xéeféer lu tax nekkuloon xéeféer bàyyi ñes radiyallahu anhu dafa wax ne amal xaraam mu mu wax maanaa def lu xaraam dee moom a ko gënal bàyyi mu ne xalaal ak xaraam ci diine rek nga koy déggee xalaal ak xaraam ci diine rek nga koy déggee maanaam lu dagan ak lu xaraam ci diine rek nga koy déggee doo ko déggee lu dur ci diine kon loolu benn war nañ la rectifier ci loolu noonu parce que erreur nga def foofu noonu dégg nga su fekkee ne ñëw nga ci yaayam nga ne gënuñ sa ndey gënuñ sa baay euh, bu la neexee nga wax loolu waaye képp koo xamante ne yaa ngi nekk mbindeef yaayu yonent bi moo la gën yaa ngi dégg bàyyi yonent bi moo la gën parce que ñoom ñoom meññ ki gën ci àddina bi lu tax loolu bàyyi radiyallahu anhu dafa woy mu ne sabaqat fil faxaari dafa taatin an jabat bi duril yetimil xaali mu ne bu yomal qiyaamee jigéen ñi ku nekk dina tiitaroo kenn ku nekk naan man maa jur diw man maa jur diw man maa jur diw mu ne waaye Aminatu bintu Wahbin moom dina raw ñëpp waxtu wu taxawee ne man maa meññi dégg nga wurus bu bu jirim boobu te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku tedd kooku te mu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne waxtu mu ko waxee rek dina raw mboolem jigéen ñi su boobaa yow ana sa waajur bu jigéen fan lay nekk na nga ci bàyyi xel kon wax ji nga wax ni wax la joo xamante ne yaa ngi atteindre ngëm-ngëmu doomu aadama yi sooy wax waxal ci li nga xam ne moom nga spécialisé wu ci moom te mooy politique ci yooyu lañ lay déglu waaye du ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de leen moytandiku di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te amu leen ci benn xam-xam que yéen a ngi atteindre ngëm-ngëmu doomu aadama yi dégg nga yonent bi sallallahu alayhi ak ay waajuram ñoo gën keneen ku dul yow ñoo gën lu eh, mën a doon bépp mbindeef bu yàlla bind yaa ngi dégg su ko defee ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax ne yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam lañ wax ne la alquran wala la yàlla wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yéen doomu aadama yi am ngeen royukaay bu rafet ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu rek la ñuy ba jàngale ni mu daan àndi ak ay soxnaam yonentu rek lañ daan jàngale bay jàngale ni mu daan duggee ci wanag yonentu bi rek lañ jàngale bañ jàngale mboolem dundam bi am na foo xamante ne dégg nga képp ku naroon a jàngale noonu sa bàyyi nga bañ yaa ngi dégg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ jàngalee noonu lu tax parce que amuñ beneen royuwaay amuñ benn jubluwaay ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga su fekkente ne bëgg nañ yàlla Yang ngi nañ top yonent bi lolou lañu alcorane wax de nga parce que yonent mom moy buntu bobu nonu kon koku ki ko meññal indil ñuko koku mënuñ ko yemale ak dara te yemul ak dara itam yemul ak dara itam kon wax yenn wax yi dëgg-dëgg war ngeen ko moytandiku ngeen moytandiku itam di atteindre ngëm-ngëmu doomu aadama yi doomu aadama ngëm-ngëmam dafa for trop te ñun yonent bi alayhi wasallam mom lañ gëm yonent bi lañ bëgg te fi daaw nañ ko itam suñu bakkani kon lolou lañ am liñ leen li denk sa say wax na ko corriger nekkul lu rafet te mag mu tol ni yow dégg nga ñu tuddee la Moustapha itam teg ci dëgg-dëgg am na yoo xamante ne war nga ko jombal sa bopp sax nga ko wax ci média àddina bi di la dégg dégg nga eh, loolu nang ci moytandiku bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tijan jox ñu ñuy naan